Euh, comme li nga wax nag ginnaaw bi ñu réew bi ñu réew mi yëpp nuyu parti pouvoir bi parce que réew mi ñun ñoo ko bokk Sénégal benn dëkk la boo xam ni dafa xat lool euh, ba ko bokkalul tamit directement di ngeen bokk indirectement mais particulièrement maa ngi leen di sant yéen waa Walfadjri parce que ñun bu ñu toogee fii dafa am jëmm joo xam ne mënuñu koo bañ a fàttali fàttaliku hmm. muy Sidi Lamine Niass parce que ñun tey bu ñu amee fit ci ci réew mi bay joxe sunu xalaat te amuñu ci benn calcul moom dafa bokk ci ñi ñu ñimeloo mhm. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge yéen it yéen ñim fi bàyyi patrimoine bi gis nañ ni ngeen ko téewee man bokkoon naa ci Sénégal yi jaaxle woon mais mhm. ginnaaw Sidi Lamine est-ce que Walf dina continuer idéologie bi mhm. maanaam ligne éditoriale bi mhm. mais au contraire tey ku fi dugg sa xel day gën a dal xam ni patrimoine bi fi sii di bàyyi woon mhm. yéen a ngi koy doxal ñu ci remercier waa kër gi yëpp commencé ko ci directeur bi oustaz Assane nga xam ne suñu magu daara la Cheikh Niass sunu frère la parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ak yéen ñu koy jàppale loolu moom il fallait que ma wax ko comme ni nga ko waxee nag dossier bi moom jamaa jàpp ni Euh, man bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne dañ cee jël position bu leer te nëbbuma ko wax naa ko ci télévision yi wax ko ci samay chronique wax ko ci ci ci ci samay conférence mooy damaa jàpp ni bu dee ni am na lu ñuy tuddee man dégguma tubaab mooy mensonge boo xam ni siècle bi fen wi gën a rëy ci fen wi maanaam jub téeméeri at yi fen yi gën a rëy ci ci fen wii mooy fen wii nga xam ne Adji Sarr fen na ko. ci Sénégal wala. waaw ci ci ci ci ci Sénégal man damaa jàpp ne ay fen la yoo xam ne ak i tappale yu teguwul fen yoo xam ne bañ ko waree ranger ci tiroir yi yàgg na parce que wolof dafa am lu mu wax mooy gàcce gu gàtt. moo gën gàcce gu gudd. wolof waxaat ni daw ca ba ngay ami tànk parce que ñun ki ñu jàngal di yonent bi sallallahu alayhi moo dàq jàngale ci àdduna bi te moo jàngale bu dara amee comme li xew ñu ñu jiiñ nit njaalo li ñu yonent bi wax sallallahu alayhi wa wax bu leer la mooy nañu xool ba xam ki jiiñe am na ay seede wala amul ay seede mm-hmm. waaye yemul ci benn seede yemul ci ñaar yemul ci ñett dafa indi ñeenti seede mm-hmm. ñeenti seede yoo xam duñ bokk fu ñu jógee waaye bi ñu gisee aji saar benn seede sax amu ko benn kon bu doon ci charia la ñuy àtte ñun ca booba la ñuy jël mbir mi teg ko ci suuf bu aji saar insisté charia daf koy caw ak képp ku ànd ak moom di ko dooleel charia da cawale kon ci charia kon viol amu ci xanaa. ah, ah waaw non charia moom li muy gis. charia hmm. moom li muy gis leer na mooy njaaloo la charia di àtte. Hmm. boo nee jigéen daf jigéen bu taxawee ni góor daf ma njaa daf ma. sàkku daf hmm. dañ koy laaj ni ko an say seede. boo amul seede boo amul seede ñu teg wax ji ci suuf donte sax loolu ma la mu wax dëgg la waaw mais wax ji dañ koy teg ci suuf dañ koy teg ci suuf parce que amul seede hmm. parce que lislaam dafa xam ne jigéen dafa bari pexe hmm. inna kayda kunna azim moo tax te lislaam xam ni yàlla mi bind jigéen hmm. daf ko suturaal ci façon boo xam ni li nekk ci moom daf ko denc dencin woo xam ni ku ci jot rek ku ci jot yow yaa ko ko jox. Mhm. bu dee mineur na ah oustaz foofu moom am na tuuti kii ku ko ku ci jot yow yaa ko jox ça va. xam nga xam nga. loolu moom. ma daane rek parce ah. que. c'est vrai nga nga nga ñëw ci yonent yàlla gi nga xamante ni moom ba ko euh, euh, soxna sa jiiñee. Mhm. Ah, ak nañu àttee. parce que seede amutoon foofu te yonent yàlla Yusuf mhm. ak soxna yi euh, kii nu mu tudd. Firawona mhm. ba yëf ya amee. waaw àtte nañ pourtant amul seede mais àtte nañ. très bien xam nga yow laaj nga question boo xam ne dafa neex xam nga ñun en tant que xeetu yonentu salaay salaam. dafa am kuñ ñu royloo maanaam sharia dafa sharia shariatul muhammadiya mhm. moom lañ ñu royloo ñun c'est très important loolu nag ñi jàng sharia dinañ ko xam mhm. maanaam bari na luy am ci alquran ay xissala yu ñu lay nettali waaye bu roy jotee moom shariatul muhammadiya la ñuy roy mhm. loolu ñu jàng duñ ci werante maanaam yooyu ay xissala yu amoon alquran nettali ko ni li yéeg lii ba mu xewee kat li yëg lii moo ci xew waaye yonent bi moom bi mu ñëwee dafa indi sharia maanaam indi constitution yaa ngi dégg mhm. constitution bi nga xam ne moom la yonent bi teg laa lay wax man nga xam ne ñun jullit ñi moom la ñu war a roy mhm. moom moo wax ni bu jigéen tuumaalee góor ni daf ko sàkku mhm. dafa war a indi ñeenti seede yu bokkul fu ñu jóge bu fekkee ni amul ñeenti seede charia moom du ko reconnaître jàppee ko njaalo yaa ngi dégg donte sax am na charia moom pare na ci tëj day tëj wax jooju parce que amul seede mhm. te lislaam yemul ci benn seede yemul ci ñaar yemul ci ñett dafa indi ñeenti seede mhm. te lislaam day sóoraale complot mhm. ba nga xam ni seede yi du duñ bokk fuñ jóge maanaam kii day jóge Kër Masaar kii jóge Tëngéej keneen ki jóge àndulaay gama dëkk keneen ki jóge Pire ñu soog a xam ni lii ñeenti seede yu bokkul fuñ jóge la te ñeenti seede yooyu buñ ñëwee dañuy gis gënd gi ci biir kuur gi gis nga. moo tax mhm. njaaloo ci charia lu jafe la. Mhm. mais njaaloo ak viol est-ce que c'est la même chose parce que yàlla sax c'est consentant viol on dañ la forcer. est-ce waaw xam nga viol moom. charia daf lay condamner rek comme ni muy condamner njaaloo. ah ñoom bokk àtte. waaw bu fekkee ni am na preuve rek dañ lay dañ dañ lay condamner mhm. mais. islam moom li ma la wax rek seede bi lay gën a xool. mais mais imam imam bu dee bu dee viol la nan la ay seede di ñëwee. viol koo nga xam ne dañ ko yóbbu ba ci àll. jël takk ko ci oto. yóbbu ko ba ci àll moo xam àll boo xam ne kenn nekku fa. ñu sàkk ko dem ñu ne loolu il faut que mu am ay seede yoo xam ne nañ ci ñëw. est-ce que nekkoo di di jaxase ñaar yi muy diggante euh, viol ak li nga xam ne moo di njaaloo maanaam tey balaa ngay tuumaal nit kii ne dafa njaaloo soxna fii nga am ñeenti seede yooyu nga xam ne moom la lislaam wax est-ce que mbir yi bokk na ma yokk ci ma yokk ci rek euh, parce que aussi sànq yaa ngi te foofu man d'accord ma ak boo ne bu fekkee euh, viol am na dafa fekk ku jigéen ki moo ko jox délibérément foofu moom mënuñu ci d'accord te yaakaar naa ne aussi ci diine l'islam attewuñu ni ku ñu violé yow yaa joxe sa bopp délibérément waaw xam nga sa très waxtaan bi moom tey war naa neex quoi li gars yi naan dina saf kaan yi mm-hmm. c'est important ñu waxtaan parce que réew mi bari na ñuy wax dañuy waxan rek bu ñu waxan nañ xool li li bu dee lislaam moom leer na ay texte la mm-hmm. gis nga bu dee olamaawul muasira boroom xam-xam yu bees yi mm-hmm. dem nañ ba àgg ci ni nit ki bu fekkee ni dafa ñëw ni dañ maa sàkku dañuy dem yóbbu ko ci docteur mm-hmm. docteur bi xool ko bu ko xoolee dina mën a xam ba xam dañ ko sàkku wala sàkkuwuñ ko te ragal naa ni docteur bi bi mu xoolee aji saar dafa wane ni sàkkuwuñ ko loolu am na wala amul. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. mais dans le cadre général pas Adji Sarr spécifiquement. non moo ñu fi indi nag tey. ah ndax moo nar a taal réew mi kon waxi Adji Sarr la ñuy wax. mais pourquoi muy taal réew mi nar a taal réew mi. waaw li ma gëm pourquoi Adji Sarr moo nar a taal réew mi. Adji Sarr gune ah. bu ndaw la bu amul amul amul amul. dans le cadre général aussi ce serait. non moo nar a taal réew mi loolu man mënu ma ko dégg di noppi. Hmm? moo nar a taal réew mi. waaw mais da ngay wax lan moo tax ah, mu nar a taal réew mi. waaw non bu ko taal Adji Sarr mënul taal réew mi nekk ci benn lancé boo xam ne il faut que mu leeral ñu ko. waaw foofu la kenn mënul taal réew mi actuellement imam soo bëggee jël affaire bi nga teg ko ci charia. Ah. da nga xaw a doy waar xam nga lu tax parce que Sénégal tënkuwuñu ci attay charia mm-hmm. déjà déjà c'est important donc nañ tënku ci atte yoon loi bi fii Sénégal. très bien man ci ci loi boobu laa loi damaa njëkkee charia. parce que man sama référence bu njëkk. Mhm. mooy charia. te réew mi même bu dee tënkuwuñ ci charia li fi ëpp ay jullit lañ. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. li ñu liif réew mi. tee ko ci charia lañ tënku. réew mi boo fi génnee ñi tënku ci charia ñu jeex fi tàkk. kon atte bii lu ñu imposé la waaye réew mi gëmu ko. réew mi ku fi ëpp personnalité Serigne Mountakha. te ci charia la tënku. sëñ Babacar Sy Mansour ku ko personnalité ci réew mi ci charia la tënku. kon loolu ñi koy wax dañ koy wax nii rek. waaye réew moomu am na. prostitution ñëw réew moomu yoon nee na prostitution nit jigéen am na droit jaay boppam. réew moomu réew moomu wax. waxtaan wi bu ñu ko dégloon rek dina neex man dinaa ñëw ci loi tubaab bi parce que jàng naa ko liir naa ko. Mhm. mais kon man en tant que imam sama première source mooy charia. dama leen a wax ni charia moom libéré na Ousmane Sonko caw na Adji saar loolu ba ma ko dalee wax yàgg na te kenn dindiwu ko. Mhm. parce que amul preuve amul seede te day dafay insister kon charia daf koy caw mhm. lii leer na loolu lii ca débat bu njëkk balaa ko waxoon ba léegi dégg déggoo ustaas bu jàng diine bu ci werante mhm. léegi mu des ci loi réew bi ngeen xam ni moom ngeen bëgg ñu wax ci nga xam ne ay nit a ko teg rek mhm. interpréter ko mën nañoo juum te ñi ci ëpp sax dañuy juum parce que ñi koy bind ñi ci bari dañuy laal seen euh, réclès ba seen yaram tàng ñu soog a commencé bind ah bon ah loi bu dul loi bi yàlla ay caaxaan la wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humu zalimun wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa